na ku ma dugaloon lëfam démb ah, mooy kii nu mu tuddati waaye damay fàtte tur bi ki ma dugaloon lëfam xaaral gay kii laa dugaloon lëfal démb lëfam papaam dafa yëg action bi paaka la génnoon naroon koo rey laytaal bu dee yaa ngi may dégg def nga lu bon def nga lu bon fi mu toll nii ay gendarme ñoo ñëwoon seen kër léegi. seen kër léegi laay laay moo ko jàpp ak paaka naroon koo rey da koo dóor ba muy bëgg dafa jàpp boy bi dóor ko ba muy bëgg a dee génneel ko paaka paaka la ko génneel paaka da ko naroon na jam léegi nag boy bi ci la woowee carabinieri yi maanaam gendarme yi ñu daal di ñëw ci kër gi. laay mooy papaam Pontedera lan dëkk Bentina laay bu dee yaa ngi may dégg laay taal def nga lu ñaaw. paaka la génnee paaka paaka la ko génneel paaka da doon rey doom ji da ko doon rey paaka kat ah gendarme yi ñoo fa ñëwoon léegi affaire yaa ngi nii. affaire yaa ngi nii gis nga. oto carabinieri yi ñoo fa ñëwoon police paaka la ko génneel paaka nar koo rey booy nii di jooy xoolal xaaral xaaral déglul booy baa nii di jooy moom mooy jooy nii paaka la ko papa ji paaka billaahi mu woo mu woo gendarme

j'avais un couteau à la main léegi ñoom lépp du man de lépp moom la moom mi wane lëfam man kay li ma ko suturaalee mooy man dugaluma lëfu kenn man du ma dugal lëf dama lay yedd sa waaye xam nga leen ngeen bàyyi Sénégalais dama bëgg ngeen di wax dëgg maanaam lu jëm ci lëf xanaa mu ni leen ak yow seen lëf yi ndeyëpp xaaral ma dindi fotom sax bala kaa papa jam paaka yaakaar na ci moom la ñuy waxaat laay taal ci yow laay wax. yow mi jàpp sa doom ji ruuf ko nar koo jami paaka ba police yi ñëw sa kër léegi-léegi la xew laytaan ku bon nga ku bon nga mais yéen a ko def sa waay seen lëf yi ngeen war a téye seen data yi ngir yàlla jàpp leen seen data yi di wisaare rek di salsalaatoo seen lëf yi mel ne ku yor géej gu lamb c'est pas possible c'est xudda lëf amatul valeur waaye jàpp data di wili pande rek sa daal boo leen bëggee dégg dëgg yéen kenn dawu leen seen lëf yi ngeen war a seen data yi ci boppam ngeen war a téye jàpp seen data yi di kii te sa papa wóoru laa dóor mais yow leen seen lëf li data yi nee naa leen boo mënta gérer sa data nga dem ci soudeur bi mu defal la kannaaru lëf yomb na boo dee saw sa papa tijji nga saw wala nga day mu tëjaat denc leen lëf yi bëgguma leen a toroxal denc leen lëf yi denc leen lëf yi léegi bu ko defee gardien bi denc kooyam ndax gardien bi gaa yi ngi koy estati fu ne jigéen ñu cagañi ay waay ma c'est trop beau lui mais est beau il est mignon ma ngay xool sa koy ya kala a katt ndayam sini jee boo fi def dof loo ba jox kenn benn koy benn sénégalais boo ñamal koy dina ko dóol keneen ki ne koy bi neex na nga kattaat ñeneen ni na sa carrière yàqu ñu yàq kub bi sini jee dimbali ma ngir yàlla yónni bul tax ñu ñàkk kub koo ci katt dina fete siini katt na ma nga kattaat kooku mu demaat ci keneen ne siini katt na ñàkk suñu kub